بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي نيجي في تيجي دك بوتدي بي تي توبا تي تواي الشيخ محمود منتخا ابن الشيخ محمود البشير خليفة جنرال دي مريد اك تي تواي الشيخ بسير مباك ابن سرين عبد الخادر اك سرين الازيم باك يفاي دي جوريني سرين بيتي نكارو ngir kaddu leral yo xamanteni fas na ko yene jotali mu jëm ci mbokk julit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 xelam dem ci ne war naa def jihaad waaye rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dox diggam ak loolu ida sakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa thubuta taarat ila al jihaadi bil armahi nafsi walakin zabba an il maahi kon nag jàkka ji nañ xam ne la sëriñ bi waxoon sëriñ bay saar ci jumaay Tuubaa ja ne ko danaa bàkk sama bàkk dafa jotugut sama dëkk ba ci Tuubaa ak sa sama jumaa ja ma fay taxawal mooy sama bàkk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 ndax mubaarakul ibtidaay mooy mënul intihaay rek moo fi ne tàmbali ba boo ko sëriñ Saliou xalaatee ci liggéey bu njëkk ba moom mii la yebal mu dem tey xeeroo ginnaaw bi itam ci pàkk mujj bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëwee ñoom ñaar ñoo ànd tegaat bi Cheikh Sidi Mokhtar ñëwee itam ba ñu tàmbalaat liggéey bi demaatul moom la yebal mu teg xeer wi mu jël liggéey bi teg ko ci loxoom kon nag yàlla def na ci kàttanu yàlla ak ci baaxu Serigne Touba suñ borom def mu sotti ci loo xam boor ko bi mottali yéene moom mottali waale yéene ñëw ko jëkk Serigne Bakio fay mii nga xam ne nag yàlla def na mooy jëwriñu sëriñ bi ca Ndakaaru doon nañ jëwriñu liggéey bi nekk fa ca ba liggéey bi tàmbalee ba ni liggéey bi àggee kon lépp Serigne bi tegaatoon ko ci loxoom ñu ànd ko kon moom lay jox kàddu gi moom mu leeral.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 turu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ni mooy xalif général de murit te ñu mu naalal sëriñ bi naal bii mu ko naalal ca Ndakaaru ànd kook mbokkam yeeg taalibe yëpp ba ñu toll ci war ko ubbi war koo jullee ni ko Cheikh Mahamadul Bachir waxee rek ñu jàpp ci date bi mu tombeek ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre dëppook tamit ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru muharram di wéru wolof ñu am ci nak programme yu yaato yaatu yo xamne ci ndigalu serigne bi mu santor ñu ñu def ci ay liggéey ak i gëstu liggéey ak gëstu yépp nak teunk nañ ko def ko nañ ko ci programme bo xamne bi di dinañ ko tassaré manam ci ay këyit dinañ ko wax tamit ci radio yi ak ci télévision yi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 yalna yalla yok ay ngëneel ak leer ci mom nga xamni le liguey bi mi ngi tambalé won ci mom niko Cheikh Mouhamadul Bachir waxee te mu ñëwoon ko fa mu teg si xeer wi muy bés bobu dañ ko ko jagalé nga xamni day am ay conférence yo xamni def nañu thèmes yi dinañ leen ko garal ci programme yi ci suba gi ba euh, euh, waxtu xeewlu jot ñu dellu ci après-midi bi Nek ci tamit ci waxtaan yi nga xamni dara gennu ci diine dara gennu ci l'islam dara gennu ci tamit mbindum serigne Touba bu ñu demee ba ci guddiga mbokk taalibe yi ñu and ak rek nek ci ci njangum khassidama ak njangum ci ëlëk sa di talata di bés bo xamni bi dañ ko jagalé suñu maam soxna Mariama Buso nga xamni mom nyu jaglél busbi. bi nga xamni def nañ ci thème yo xamni bokoy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 loolu moy moy li nga xamne li moy programme bi bu juma ba nuppi nak sëriñ bi dina tejj waxtaan wi eh, na nga xamé ni bi bu féké ni bi amna lo xamne li moy ay dénkaane yu muy ak message mom dina ko waxal bopam kon c'est li mo doon mbiru programme bi dinañ ko gëna yaatal ci télévision yi ndaxte am na ay plateau yu ñuy def ak ci radio yi ak ci télévision yi ba nga xamni ni mu tëddee lépp dinañ ko gaaral ba talibé yeeg mbokk julit yépp mëna xam naka lañuy taxawé ci bëss ba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 ñoo ci yem képp ñoo ñoo kilifa diine yi ndax ñoom ñoo fi diine di sàmm diine te dem sëñ Tuubaa léppam diine la léppam lislaam la kon noonu lañ ci woo te ñu te dina xamal ne liggéey bi kat noo ko bokk noo ko bokk appelé wu leen ci wu leen kon nag il faut ñu